bon démb dañoo yendoo wax ne dañoo yendoo wax mais nag am nañu mbégte di wax it patriote yi taxawu nañ leen. Pastef la famille patriotique taxawu na leen. bi ñu nekkee fii daaw lay jàppale bi ñu génnee amul benn détenu bu génn joxu nga paas. loolu yi nag. c'est la famille patriotique moo def loolu. xam nga ñaar ñoo génn tey. fii ñi génn bon yaakaar naa suba dugub ñi ngi man xam nga li fi may interpellé nit ñi. fi may interpellé nit mooy. gars yi nañ bàyyi xel bu baax les inconnus les héros de l'ombre. Mhm. gars yi bu ñu fàtte. gars yi borom tur yi ay ñoom ñëpp dof ñoom Fadilou Keita ñoom Ibrahima Gueye nay leen. waaye si combat bi lañ bokk rek mais ñëpp dof soo na booy génn. Ousmane Ousmane Sonko ñëpp xam les inconnus les héros de l'ombre. Mhm. amuñ tur bi ñu tudd fenn. am na ñu xaañuñu nañ leen bàyyi ñu ñibbi loolu la ñuy wax nañ leen bàyyi ñu ñibbi. force commando yi génn nañu wala spécial dama ne force spéciale soi-disant force spéciale ay commando ku teg ma dox ñooñu ay innocent nañ leen bàyyi ñu ñëpp ñibbi bàyyi kii jàpp kii loolu du am. fekkee dañoo bëgg réew mi si jàmm lan Ousmane Sonko waxoon man na damaa yàggoon nag Ousmane Sonko fii ak mi si jàmm réew mi lay nekk si jàmm fii mi ngi ay réew mi si ay rang lay nekk kon gars yi nañu waajal campagne bi focus Sonko mooy jooju maa di Sonko yaa ngeen jëf. moom moom moom lañ koy déglu. mënatul def leneen lu dul lii mën mënatut def leneen lu dul lii parce que sës na ci miir bi li gënoon a metti ci àdduna mooy moom li nga xam ne moom la gën a ragal di ko ko Abdoulaye Wade bëggee def 23 heures la taal otoon bi 210 la doon dawal oto bi keroog daw ci alaaji baara naan ko grand marabout pitié moi pitié moi boo ci waxut Abdoulaye Wade di jéem a tëj ci kaso bi loolu nag bi mu toogee ci nguur gi loolu lay jéem a dóor ci kaw nit ñi mais xamul ne fii dafa nekk foo xamante si ni boo da nga fi boo fi duggee ngir rey nit wala nga fen wala nga def dara ci ngay rus mais suñ dugalee ngir sa xeexal sa réew loolu soo génnee euro ngay doon te bi xale yi génnee ñëpp da ngeen doon tàkk ñoom ñëpp biñ biñ ñëwee maintien lañ doon wax ak focus nañ dem ci campagne bi kon li nga xam ne moom la bëggoon ci xale yi amu ko tey te amu ko suba parce que xale yi président Ousmane Sonko daf leen a yee démb tey soog a ñëw xamal leen lan mooy réew mi xamal leen ne dañoo war a taxaw combattre ci réew mi xeex suñ liberté xeex suñ démocratie parce que boo dëkkee ci réew ba mënoo faa wax sa xalaat mënoo faa mënoo faa génnee sa mer jërutu dëkk ci ci réew mi te ay yambar yoo xamante si ni duñ ñëw jël 2012 ñu jël nguur gi bëgg a xoqatal nit ñi loolu kenn du ko nangu parce que comme ñoom ñoo mën a amul fit ba jël nguur gi seere ko di xoqatal nit ñi asama ak nun ndax réew mi bu fekkoon ci ak juddu lañ joxe du ko jël bu fekkoon ci njàng du ko jël su fekkoon ci aw fit du ko jël parce que ba mu toll na ñun ñemewut a jël ay responsabilité taxaw ci fii kenn xamu ko woon ci lii ci lañ ko xamoon mooy téye mer mer gàddoom saale dem fee buñ dóoree ñaari grenade mu dugg ci atom lekku cent dix am dem ñibbi loolu amatu fi c'est fini na xam ne journalu daaw la dafa loolu képp koo xamante si nii ci droit ngay yëngu xam nga ko nun xam nañ ko bu baax a baax parce que ñun ci droit la ñuy yëngu ñun ci la ñuy ci wax dara du ko dindi moo tax bi nga xamee ne Coor Fall jóg na di jéem a njëkkantu naan su ñëwee incompétent lay wax ma ne ko juum nga yow sa waay sa sa ñi nga doon jàngal droit yëpp danoo war a lakk seen parce que xamoo dara bi nga fi ñëwee xamoo luy contumace dugal nit ñi ci ay musiba ñëwaat di diñu sonal ñu lay téye ñu lay tuddee ab téyeur de constitution mënoo dagg dara ab téyeur boo demee ba dagg li ngay dagg da ngay bàyyi tappale yi lañ war a bàyyi conseil constitutionnel lii mu def la war a def parce que mandat bi sénégalais yi ñoom ñoo ko moom amoo mënoo mënoo mënoo wàññi ba pare naan da ngay da ngay yomb non kii moo bëgg lu yomb sëñ bi kii moo bëgg lu yomb yow wàññil deux ans nga ne mënumaa wàññi nga ne léegi da ngay yokkaat ku mënta wàññi nooy yokke xamoon nañ ne ci lii la ñu jëm mais li mu bëggoon moom mooy sonal nit ñi ba nit ñi duñ campagne yi dafa dugal musiba ci Sénégal parce que lii Sénégal yi mosuñu koo dund mosuñu koo xam heure waroon naa fekk ñuy def suñu campagne pare jël réew mi jox ko Bassirou Diomaye Faye ñu libéré détenu politique yi mais loolu la rus mais incha allahu rabi ñëpp la ñu bàyyi bu ko defee ñu dugg ci campagne bi fal président Bassirou Diomaye Faye li ñëpp bokk mu tegaat ko ci tracé yi lii ñu bàyyi nii moom taxul li ñu waxanteeg ñoom ñu ñu ñu dindi ko moom ku fi jël suuf soo moomu danañ ko nangu ku fi jël xaalis boobu moomu danañ ko nangu terrain jàmbur yi ku ko jëloon na nga dem delloo ji ko borom te xam ne dix-huit deux mille vingt-quatre danañ nangu lépp ba leen leen a toroxal nag dem leen li ngeen sàcc ngeen dem delloo ji ko wasalaamaaleykum wa rahmatullah kon fii yëpp ñu ngi génn waa si suba am na ñuy génn waaw dañuy ëpp sax suba la génn paas bi métti na mais dañ koy jaayante dañ koy dañ koy fi ñëw dañ lay jox paas que ñoom am nañ disponibilité suba nga am oto particulier ñëwal rëbës nga jàpp ci i loolu it lañ leen mën a fayal parce que xale yi sonn nañ te dund nañ ko ak dignité ku fi génn daan Sonko ku fi génn daan Patriote ku kon loolu am gëm-gëm la gone yi nag dañ leen sànq parce que ay héros lañ soo di héros kon nag encore une fois di wax suba suba may lancé benn appel patriote yi ku am oto ñëwul rëbës da ngeen ñu fa fekk incha allah ñu xool ñu ko leen bëgg xale yi di jaajëfal ñëpp jërëjëf dañ koy jaajëfal gis nga lii borom réew mi daa dem ba xamatul mu dellu ginnaaw xam ni population Sénégal kenn mënu leen a xoppatal ba ñu dellu ginnaaw waaye Seydina Ousmane ñun patriote niñ ko gëmee woon démb tey jii lañ ko gën a gëm gis nga lépp loo xam ni Seydina Ousmane mi ngi koy def mu xam xale yi nan ngeen xale yi tey xale yi bala maa wax ci ñoom damay wax ci suñu leader ba pare xam nga Seydina Ousmane tey mënoon naa fanaani këram waaye nee na du génn fa mu nekk fekk benn patriote wala benn sénégalais boo xam ne dañ la jàppoon dugal la ci kaso yi yaa ngi ci biir génn ak yow du mas a génn kon nag maa ngi leen di wax ñun sénégalais yi nañu gën a gëm suñu leader gën koo wóolu te xam ni lépp lu muy def xam na fi mu ko teg kuy enregistré ay vidéo ci lu ñëwagul kon li nga xam ne moo dëgmal nekk ci sa kanam te ba mu taree nag ñu barricadé ko cinquante cinq jours te këram fa ànd ak xam li war ñëw mu enregistré ay vidéo teg ko suñu candidat bii nga xam ne moo ñu ko joxoñ muy jomaay ba mu koy defal vidéo xamagul woon ni lii dina ñëw tey kon nag bu ñu demee ba borom réew mi dellu ginnaaw xaw daa waxtaan xaw daa dem ba xam ni jaadootul mu xam ne Seydina Ousmane a nekk ci dëgg mu ni nañ leen waxtaan ndax waxtaanu Seydina Ousmane bokkul amul sens beneen bi ci des mooy élection fii ci Sénégal bala ka fee nit a tëgg te patriote yi amuñu candidat xam nga ne yooyu élection du am te fii bu ñuy wax opposition benn lañ ci am benn mooy Seydina Ousmane te Seydina Ousmane mooy leader bi nga xam ni du wor sénégalais yi te du wor Afrique gis nga li commencé benn fii ci Sénégal ba Afrique du Nord ba Afrique de l'Est Seydina Ousmane lañ xëpp ci suñu bët yi di bokkool la am Burkina am Mali am Guinée ñeenteel bi Seydina Ousmane lay doon te fas nañ yéene ñun patriote bi li ñu bëgg ci Sénégal li ñëpp bokk ñëpp jot ci Seydina Ousmane lañ ko yaakaar wala kenn koo xam ne moo ñu ko joxoñ te incha allah bu ñu delloo waatee di génnee liste bii di ñëw Seydina Ousmane dina ci bokk ndax sans Seydina Ousmane élection du am xale yii nag dañ leen di sant ndax réew mi dañ koo tënkoon avant mille neuf cent soixante ba léegi lu ñu am ñu jël suñu rusu su bépp tubaab yi di ko jël suñuy maam xeex nañ ba sonn waaye xale patriote yii population Sénégal bii li commencé 81 jëm kaw ñoom ñoo tënki tënk bi ñu tënkoon senegal dañuy wax yeewi askan kenn yeewiwul askan xale yii ñu génn tey ñu taxaw fii ci Rebeuss une heure du ñoom ñi ñoo yeewi Sénégal te Sénégal nag ku jàpp ne ay jaam lañu booba da ngaa xamul kan mooy Sénégal boo gisee ñu agsi fii tey dañoo jàppoon la vingt cinq février ñuy dem élection moo tax ñu mënoon a muñ waaye xam nga ne Sénégal ñoo ngi leen di ñaan nag képp képp patriote boo xam ne yor nga oto suba na nga ñëw fii rëbës te ñi ngi ñaan sénégalais yëpp ñu génn tett suñu doom yi nga xam ne ay héros lañu suñu doom yi nga xam ne boroomi jom lañu suñu doom yi nga xam ne boroomi ngor lañu boroomi fulla lañu boroomi tingite lañu te bu fekkoon ne njaayum jaam am na nag kenn du leen yóbbu ah xale yii ñooy ay gor xale yii ñooy borom jom ñooy borom sutura yéen ñëpp na ngeen génn ñu teetu suñu doom yi tatagal leen ndax ñoom ñi ñoom Mito Tatagal waaw ginnaaw bi ñu sant suñu borom nag julli bi sallallahu alayhi wa sallam waaw di jaajëfal patriote yi fi teew yëpp ngir teeru maanaam suñu compatriote bi ñu libéré tey ñu euh, message bi may envoyé gars yi rek mooy li le président Ousmane Sonko wax mobilisation sensibilisation def focus ngir incha allahu système bi dañ koy jële jëlee fii par A ou par B ko waxee woon di wax électeurs yi Sénégal képp ku ci bindu woon ñu nekkee kaso ba tey seen i taxawaay mat na sëkk ñu ñuy taxaw ñu ñuy assister ñun mënuñoo sonn si kaso bi ndax ñoom ci biti dëgg la fekk ñu ñu fii maanaam dugguñu mais mel na ni ñoom ñoo ñu biir kaso ndax chaque mardi di nga gis leen chaque jeudi di nga gis leen. Mhm. Mhm. seen dërëm desatul seen poos. Mhm. ñu ñuy jëndal ay yére. ñu ñuy jëndal lu ñuy lekk ñoo ñu xool ndax ñu ngi si jàmm lu ñu yëg ñu daw si. ñëw ba fii kenn amul seen fay. mais day wane rek Sénégal dépassé na ñun suñuy personnalité. dépassé na suñuy intérêt personnel. ndax ki nga xamante ne ay mille cinq cent et quelques détenus ñoo ngi fii. amul kenn ko si frustré wu. fàttali ñu tur bi Cheikh Omar Kassé laa tudd. ñu may jàpp 22 juin. te li gën a yéeme mooy ci biir néeg nañ ma fekk di ma jiñ ay trouble à l'ordre public. ci sa néeg quelle contradiction biir néeg nañ ma fekk jiñ ma trouble à l'ordre public. loolu mooy Sénégal quoi le 22 juin. mais di santaat yàlla bu baax di sant waa kër Ami Dia. Mm-hmm. ndax fa nañ ma jàppee fa nañ ma fekkee. Mm-hmm. lenn mooy suñu toor mooy nekk ay citoyen gëm seen réew ba pare ànd ak président Ousmane Sonko. Mm-hmm. muy teraanga bu ñu yàlla jox. ñun du waxtu jàng jotee dañoo jàng. yàlla dimbale ñu ñu nekk si université bu gën a mag Sénégal muy Cheikh ante Diop. Mhm. bi waxtu topp politique jote ñu topp leader bu gën a mag Sénégal muy Ousmane Sonko. parle-moi un peu de Ousmane Sonko philosophiquement mooy ki nga xamante ne yàllaa ko yàllaa ko beral beral loxo nañuy wax ah jaamu yàlla xàkkan la muy nit ku am diine ku am ngor ku bëgg a Sénégal mooy ku lay ku bëgg Sénégal ba pare di jàngal nit ñi nu ñuy bëggee seeni réew. de par ses ses faits que comprendre nga lu gën a lu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam gën a bëgg muy jiireem mhm. Ousmane da koo teral mhm. ndax xaaj na salaire jox moitié jiireem mhm. ne serait-ce que pour loolu rek Sénégal war nañu mën a am beneen beneen gis-gis si moom ñu xam ne kii du neen ko sax yoo ko yàqee yoo koy jéem a yàq nit ñi di ko gën a bëgg nga war a mën a xoolaat sa bopp ñun lu ñu am moo ñu ko gënal nekk nañu kaso mu defal ñu fi teranga bi nga xamante ne mënoon naa dund ba dee duma ko am suma àdduna muy jàng alxuraan fii laa firee iji te loolu yëpp ci ndimbalam la di ko santaat bu baax a baax a baax a baax a baax xamal ko ne nit gënu koo gore ndax waxtu tànn bi mu jotee suñu morom détenu la jël ne ko demal yaay nekk candidat pour gagner élection yi kon xanaa détenu yi sagal na leen moom desewuñu dara na la laaj loo ma laaj ma mbuus bi lan waaw mbuus bi lan souvenir neex la yi sumay yëre fi nekk sumay poto saabu comprendre moom laa génnee kaso mu nekk ndam bu mag ki man d'ailleurs sax sama euh, papier libérable dama koy photo boole ko photo Ousmane sama photo photo Diomaye xamal ne ni carrément ñun amuñu benn regret si si nekk fii si biir kaso bi benn fan nañuy am lu ñu métti mooy bu ñu déggee Ousmane newul si jàmm sinon ñooy sant bu baax a baax a baax détenu yu fi nekk yëpp moo xam ay manifestant la wala ñu newul manifestant jéem nañu lu ñu mën pour ñu gëm projet bi te gëm nañ ko mm-hmm. ndax ñoom ñoo ñuy jàppal journal ñoom euh, ñu nag ñoom ñooy seetaanandoor lépp luy débat politique ñoo koy seetaan donc réussir nañu won leen ni ñoom si si si askan bi nañu bokk. Mhm. li leen war newul nekk si biti di jël ay alal jàmbur. Mhm. newul nekk si biti di def naka su dul noonu mais dañoo bokk ci askan bi wara a participer si luy développer Sénégal ëllëg te comprendre nañ ko. Mhm. moo tax léegi mënatoo nax kenn ku fi génn moo xam luy sa problème. mais di nga xam ne kii comprendre na Sénégal lu muy doxee mhm. te bu génnee di ngeen leen gis ak beneen taxawaay mhm. waaw loolu yëpp ci ndimbalu Ousmane nañ ndaw ñi ban kaddu nga leen wax rek nga may ñu ko bi kaddu nga ñoom ñi nga xam ne jamono ji yaa xamante nañ élection yi ñëw mi daal di am changement seen côté mooy ñu consacré seen temps seen adduna mhm. nañ ko consacré si jàng bu waxtu bi jotee nañ inséré wu ci tâche politique yi pour rek bañ ay défaillant di leen jiite ay incapable di leen jiite ñun Ousmane biñ koy topp dañ koo topp ci xam-xam topp ko ci diine ba pare topp ko ci ci ci dignité ak maandute ndax jaamu yàlla dem na ñëw na maandute la nit gënu koo maandu moom nañ koy toppee léegi nañ gën a taxaw rek ñu xam ne Sénégal dara du nekk gratuit lépp dañ koy xeex quoi boo bëggee defar sa réew da ngay nangu xeex nangul xiif bu lekk amul nangul dëkku liif bu dëgg amul. Mhm. kese. jërëjëf Fatou Ndiaye tur beeg sant waaw Cheikh Omar Kase la. merci beaucoup. kon euh, dañuy dañuy dañuy faral keneen Manu be,